ci dëkk bi. loolu de dama koy rafetlu xam nga loolu li muy wane mooy Macky Sall ku ubbeeku la Macky Sall ci réewu démocratie la nekk parce que nag bu fekkoon ne dafa dem tànn militant APR yi ak militant Benno Bokk Yaakaar yi pour wax ak ñoom xam nga loolu doo am. Mhm. mais dafa ne sénégalais yi lay déglu waaye nag lii rek dafay wane ne nekkuñu ci dëkk boo xam ne pensée unique moo fi am te loolu li muy wane rek mooy. Sénégal bu euh, ñu dem. la vérité mooy aussi dañ ko génne salle bi. waa nga déglu ma rek dañ ko jàpp génne ko salle bi. nga déglu ma rek xam nga mu am sénégalais yu bëri nga ne ma benn nit jug na. contre Macky Sall ah kon ña fa comme ñi ko ànd ak moom moo ëpp alhamdulilah. non la mu yëkkati ci kàddu. mooy déggu ma kàddu yu mu yëkkati mooy xalaatam loolu nag nit ku wax xalaatam nag wax dëgg yàlla mënuñ ci wax dara xanaa rafetlu rek démocratie bi am ci réew mi ak diversité de pensée bi parce que loolu mooy dundal vraiment démocratie. kooku mi ngi bokk comme nangu kon ne ci question kooku mi ngi bokk ci Pastef. te xaaral ma uh-huh, àggali waa Pastef xam nga xam nga xam nga dafa am benn bis ñuy wax euh, Souleymane Faye ah Souleymane Faye wax nañ nangam wax nañ la nangam wax nañ la nangam mu ne man di leen rek laa déggagul Souleymane fay dafa biir ñun moom wax dëgg yàlla lu ne dégg nañ ko xam nga Pastef moom lu muy wax ci ñun liñ naan ku sa wujj di sang doo set. Mm. lu ma wax noonu damay bàyyi seen euh, xalaat ñu wax loolu mais en tout cas li may xam mooy rafetlu loolu xam ne daal Sénégal. dëkk démocratie la président Macky Sall ku ubbeeku am na am na lu ma interpellé euh, nee nga président ku ubbeeku la et tout mm-hmm. dëkk démocratie la. Euh, foofu noonu nit kooku fekk na ko ci biir saal ba te bu ñu xoolee réaction président si man kooku war fa woon nekk. que c'est-à-dire il xaaral ma ñëw ah. beneen bi mooy cortège président yàggul demoon na fi voyage mhm. ñu tuur farine ca cortège ba mhm. ci biti à l'étranger en l'impression que foofu noonu président il est vulnérable nit am na sañ-sañ ñëw ci moom def dara taxawaay bi nga xamante ne nii moom la nit yi di def fii te ñu leen koy bañal ba ci ku mel ni Guy Marius Sagna ba demoon booru pale neewuñu mu ngi woon ca yoon mais au moins deg na ay jéego yoo xamante ne de l'autre côté de la diaspora mi ngi reflété waat foofu noonu donc foofu est-ce que jarul tamit ñu taxawaat bu baax xool doxalin bi ndax lii feeñ fii mooy feeñ fële ci biti. mais xam nga man je ne comprends pas souvent une réaction yi xam nga Sénégal Macky Sall 58 virgule nangam pour cent la àndal waaw su demee feneen ñi àndul ak moom du ñu wax seen mécontentement yaa ngi wax ne ñi ngi bañal fii barki Dembo Ndiaye du gis nga marche ñoo lànk bi ñu marche fii wax seen xalaat. Hmm. mais des fois aussi. autorité administrative tamit distribution de flyers ñu jàpp si ay nit. oui mais que loolu aussi jàpp nañ ne démocratie du anarchie réew mi. dafa am ñoo xamante ni ñoom ñoo yor sécurité bi bu ñu demee ba jàpp ne parce que dañuy wax constitution moo joxe droit à la marche c'est vrai. Mm. mais constitution aussi moom moo joxe droit à ce beneen citoyen bi aussi dox la nga xamante ni moom mooy xalaatam librement sans pour autant ñu empêcher ko mu def ko donc bu fekkee autorité bi dem na ba apprécier ne moom kat lii mën na fànkal beneen. citoyen bi aussi ay àq ak yelleef fépp am na sañ-sañ jël les responsa jël la responsabilité def li nga xamante ni moom mooy indi jàmm ak. kii Mari Sagna mi ñu jàpp na te bàyyi nañ ñëpp ñu mu àndoon. chambre waaw loolu la jàpp naa ne peut-être boo gisee juge bi ak procureur boo ko laajee dina la ci mën a wax ay euh, leeral parce que man vraiment du ma procureur duma ma juge d'instruction. Pape <laughs> sérieusement man euh, mënuma mënuma mënuma comprendre réaction yu mel nii venant venant venant de. c'est-à-dire comme lan. du du régime non parce que am na cas yoo xamante ne c'est-à-dire buñ la waxee ci yenn fee yi di nga ci tontu. Mhm. wax naa léegi loo xamante ne xëy na politique la laal ne parti tel tontu nga si. Mhm. mais suñuy wax lu mel ni Guy Marius Sagna loolu mu ne lu ne weng la ci parlementaire la xam nga soo ah, nee ma soo nee ma soo nee ma du si tontu loolu naa ko mun ko. xam nga Guy Marius Sagna soo gisee juge wala. no mais xam nga lu tax ma lay wax loolu. du réponse si xam nga lu tax réponse la man je suis un législateur dama xam yoon nu muy doxee. dañ ne dossier la justice est rendue au nom du peuple sénégalais su ñu joxee décision de justice am nga sañ-sañ commentaire ci. mais loo xam ne dafa nekk en instruction mais amuma sañ-sañu wax ci amoon sañ-sañu wax ci maintenant nag ku mu neex comme dëkk bi am na ñoo xam ne dañuy def lu leen neex. Mm. man dama nekk législateur nekk parlementaire damay doxal li nga xamante ni moom la ma yoon dox affaire Guy Marius Sagna wax dëgg yàlla bis bu ñu demee ci leneen. boo loo xamante ni nekkatul en instruction su boobaa dinaa am sañ-sañ wax ci mais dama am sañ-sañ wax ci maintenant nag juge bi ak procureur bi nga xam ne moo yor mbir mi wax dëgg yàlla soo ko laajee mën na laa tontu parce que yow am nga sañ-sañ en tant que journaliste poser ko question. publicité. Mm-hmm.